నువ్వు ప్రెసిడెన్స్ de la République présidence contre le colombe Alexandre Rizaz de Félix Mori Victor Gori présidence de la République par la République présidence du de la République puis am mooy demeure la quartier de Dakar capitale du Sénégal construit en 1902 oui sama dépalo on mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AF le président Senghor Diar 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2000 2012 ak bi 2012 mu ñam fi ñamaat no la République ko kala wala salaamaaleykum wax dëgg yàlla jàmm rek ndax bëggal ni jàmm askan wi weesuwul mu mu mu mu bëgg leen a taxaw ci mbas mi ngir mbas mi jóg fi. waaw réew bu nu wéeru. Ah, bu nu wéeru dara du fa mani Papa Loum. waaye bu ma jotee instant des na kenn mënu koo jot ndax tëx. mani maa ngi lay dégg dama ni Papa Loum. du xamul dara. salaamaaleykum. mani maa ngi lay dégg dama ni. allo. salaamaaleykum. maa ngi lay dégg bu baax dama ni. lan moo waral sa woote bi ci waxtu wi ñu toll nii. ma maa ngi lay dégg de dama ni. man xam nga lu ma la bëgg a yëgal standard adduna ak may dégg sa nopp yi dama nga fajee ko man mënu ma kese si bu ma yor bu jeex dama sonn nag sës naa eh. ma ni na nga def ana président. dama ni loo ta garax ca përëm. ma ni nopp yu naqare xam nga ni ci yow la ne waaye nekkul ci man dama ni. nga ni waaw waaw waaw ma waxal li nga a wax gaaw ndax daa ñu nekk ci ligne bi. nga ni ma wax lu li nga wax. man kay lu ma xam laay wax damaa ma tabax lu ma xamut. waaw léegi waaw léegi lan nga xam looy wax. ana président. président dafa jàpp. dafa. dafa jàpp. ah day jàpp waxtu julli na day eh, jàpp. dafa jàpp mu naan day jàpp. mu yow day président président <laughs> xanaa daa biddanti. <laughs> mani. waaw dama ni. allo. yow laay déglu yow laay déglu. neel dafa lu ma xalaatoon. waxal. Chinyaki yinu andi chi chi chi chinyaki nyaki. Wa loja khalat. Wa legi dama khalatun. Legi olya nyuka nyaki ninyi. Wow. nan ko tot xoyel ko ci ndox nit ñi naan ko xanaa bu boobaa pikir ba dañ ciy daw waaye buñ ko xooyalee def ko ci ndox ñu man koo naan ci ferenge si buñ ko cappee e, ba ndox mi ñëw noonu ñu def ko ci pot kenn ko ne jo jox la sa pot nga naan idée la ki waxi nit lay wax ni <laughs> xam nga nit ñi ñàkk bi la daw ndax ñàkk bi pikir bi buñ la ko pikiree mën naa saf waaye bu fekkee da ngaa jël sa règle bi duut ko ci ndox mi léegi ndox mi yéeg ñu def ko ci pot kenn ku ne dan lay jox sa pot nga naan rek comme ñun daan toqanteere xale yi. ma ma ni yow Papa Loum. loolu day lu baax la day. ma ni sa idée baaxul laala ñàkk nga naan ay def ci ndox naan. loolu ma waxi lan. nga ni. waaye yow dama ni. waaw waaw. dama ni. ah. sa kàddu gu mujj lan la. man kay bu ma joxoon bu ma yóbbu woon Dantec def ma jiitu docteur yi man am naa ci pexe bu ko defee xanaa xamoo ni corona bi. bu bu nu wutoon sexaw xam nga sexaw. maa ngi lay dégg. waaw sexaw waaw waaw ñu def ci jinjeer def ci kaani def ci limon patel ci mandarine gebet pomme def ci jël fraise def ci jël dégg maam banaana gebet ko ci jël xaal gebet ci. ma Pablo. ko naanee benn yoon day day dàq day dàq bépp taw jàngoro day dàq njàmbutaan dàq ŋas. ba ci corona bi mën na ko. mani wuyu ma wuyu ma <laughs> man kay li nga yi naan ko mais dama ni eh, wuyu mani votre correspondant na peut-être je pour le moment veuillez appeler ultérieurement coupé naa